bisimilah fi ne seytaan rajim yi bisimilahi rahmaan rahim santaat yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziar yéen ñi nga xam ne saa yéen a baaxoo di jàkkaaroog Waarwi TV nekk alal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci doxantu bi Waarwi TV di doxantu nag ak jotaay yi muy seq tey nag ñu ñëw seq ko fii ak kilifa ndax ñu ngi fii ci Darou Mouhty li ma wax sànq rek Darou Mouhty dëkk la boo xam ne dëkk jaamukaayu yàlla dëkku ñaan la mais nag dëkk intellectuel la parce que bari na ay cadre yoo xam ne ñu ngi dëkk fi à Darou Moussi di fi dëpp ba ay seen waa di liggéey tamit li nga xam ne moom la ku tedd ki digle te di ko sellal ndax nit ku nekk rek ak yoon wa nga xam ne fa nga mën a jaare ngir liggéeyal sa askan moo tax tey nag jotaay bi fa sigo yéene seet ci kilifa yi Darou Moussi yi maam bu ci kanamee da ngeen xam gan la ndax saa su ne rek li may wax li leen di neex ñun ca la dox li ngeen di bëgg ñun mooy li nga xam ne moo ñuy gënal ñu jox nag sunu gan mu présenté wu wax mooy kan mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di am mbégte lool dajeek euh, télévision bi nga xam ne moom la ñuy wax waar wi man nag maa ngi tudd Madiop Bitèye nekk maire de la commune de Darou Mousty euh, nekkoon nañ fi également député à l'Assemblée nationale àndoon ak euh, Modou Diagne Fada ci coalition boobu ñu tuddoon coalition waar wi yàlla dogaloon ñu amoon ci ñetti député à l'Assemblée nationale bi yàlla dogalee en fin 2009 ñu def ko ministre de la santé boobu laa ko remplacé assemblée nationale ba yàlla dogal parti démocratique Sénégal bi ñu àndaloon ñàkk pouvoir bi euh, Macky Sall nekk président de la République alternance également am ci euh, assemblée assemblée nationale. donc depuis août deux mille euh, deux mille quatorze lañ ñu fal maire de la commune de Darou Euh, ak suñuy moroom suñuy xarit yoo xam ne ni ñoo bokk conseil municipal bi si mbirum euh, politique ba tey jiite woon nañ fi ndaw parti démocratique sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci université bi muy mouvement des élèves et étudiants libéraux bokkoon nañ ci kuréel gi nga xam tam muy jiite ndaw ñi muy UJTL union des jeunes travaillistes libéral bokkoon nañ ci euh, instance yi nga xam ne aussi moom la parti démocratique sénégalais amoon yëpp ba ci jamonoy 2015 bi jafe-jafe yi amee ci la ñu ñu génn ci parti bi ñun ñu àndoon ak Modou Diagne Fada di am yoo xam ñu ngi ko doon réclamer ci loolu nag lañ mujj taxawale suñu parti bi ñu tuddee LDR Yeesal les démocrates euh, réformateur no parce que Diagne Fada moo ñu mag donc mm, tey ci PDS lañ ko lañ ko xamee xamewuñ ko ci beneen euh, beneen parti donc mën nañ ne moo ñu jiitu parti democratique sénégalais mais ñun yàlla dafa dogal également ñu juddu ci cadre boo xam ne ni cadre bu politique la woon ak jege aussi parti démocratique sénégalais parce que sama trondo fii ci Darou Moussi waajuram wu góor moo fi daan indi Ablaye Wade muy Baye Matar Diop waa Darou Moussi yëpp xam nañ ko ak sëñ Cheikh si la diwaan euh, donc sama turandoo boobu nag moom ak sama papa noonu lañ euh, jege woon parti démocratique sénégalais mais ñun ñu gën ci engagé wu parce que xaj na mag ñi am nañ jamono yoo xam ne ñoom euh, seen engagement demee tutoon noonu mais xam nga ndaw rek moom toujours moom dafay opposé wu euh, ñun ñun tam bi ñu feeñee ñu commencé di opposé wu far yàlla dogal ñu fekk suñu mag muy Modou Diagne Fada nekk université aussi am tour euh, loolu aussi nekk loo xam ne ni motiver nañu encouragé nañu pour ñun moom kay dañuy wax daal mu si dëkku jàng la parce que dañuy wax borom daaru bi nga xam ne moo sañ ci dëkk bi moom nitug diine la woon nitug jàng alxuraan la woon ak jaamu yàlla donc loolu aussi nag feeñ na ci côté yëpp feeñ na d'abord ci ñi nga xam ne ñoo ngi engagé woon ci jàng alxuraan bi yàlla suturaal nañu ba am nañ fi borom xam-xam yu mag ci dëkk bi ñoo xam ne ay référence lañ ci mbirum diine ji ay référence lañ aussi ci tarixa bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu nekk mais ci beneen côté bi itam ci wàllu àdduna aussi am na ñeneen ñoo xam aussi yàlla suturaal na leen ba ñu bokk ci ñi nga xam ne aussi réew mi fu mu jëm bokk nañ ci ñooñu tey jii xaj na génération yi mujj rek la ñuy xam mais le premier étudiant diplômé de l'université de euh, d'Oxford Angleterre le premier étudiant noir sénégalais la muy euh, muy Sylla Cheikh euh, ambassadeur la woon booy diglu ñenn ñi la ñi ko xam sax dañ lay nettali na Senghor sax daf ko daan cité ci ay discours am daan jël ay euh, phrase yoo xam ne nii euh, Sylla Cheikh moo ko daan utiliser alagisant boo xam ne kan mooy si euh, Sylla Cheikh donc cadre bu mag a mag la woon fii ci ci dëkk bi loolu aussi poussé na ñu bari ñu xam ne aussi ëllëg mën nañ nekk dara bon am nañ fi ay secrétaires générau de chambre de métier comme ku mel ne Mbaye Guèye ñoom mais amaan nañ fi ay ministres Euh, depuis deux mille am nañ fi ay ministre yu bari am nañ fi ay directeur généraux yu bëri euh, Abdou Khoudous euh, Niang nekkoon na fi directeur général de la RTS donc bari na fi ay cadre yoo xam ne ni ñenn ñi ngi seen activité parce que ay ingénieurs lañ wala ay médecins lañ ay pharmaciens lañ ñi ngi dans des professions libérales yoo xam peut-être du tax nit ñi xam leen léeg-léeg aussi nga gis un grand au cadre boo xam ne ni mi ngi dëkk ci dëkk bi mais tey bu génnee bu defee conférence ci diine da nga naan non ndeketee. Euh, kii nii nii la mel euh, parce que tout simplement yàlla moo suturaal dëkk bi comme ni ko borom dëkk bi bëggee woon kon nag dañ ci profité aussi nuyu bu baax a baax euh, Serigne Bachirou Anta Niang ñaanal ko yàlla gën ko yàggal suñu kanam gën a yokk ak wéram ndax xam nañ ni lii ñuy liggéey ñun ci dëkk bi moom lañ koy liggéeyal te ak wéram ak gudd fanam aussi euh, baax na ci ci ci ñun ci conseiller ci lu mel ci lépp di nuyu ak di ziare aussi Serigne Bassirou Abdou Khoudoss mi nga xam ne mooy porte parole ak Serigne Charles Faye Mbacke mi nga xam ne mooy euh, chef de village. oui soo seetloo euh, en 2009 la am benn conseil municipal bu fi nekkoon am ku fi nekkoon aussi président du conseil rural mu nekkoon Thierno Lo moom aussi ñoo bokkoon parti. yàlla dogaloon aussi ñu gagné élection yi ensemble ñun ak moom ak Modou Diagne Fada parce que ñun Modou Diagne Fada lañ àndal bi yàlla dogalee ñu gagné élection yi aussi ñu def euh, problème am ci diggante bi ñoom ñu waxtaan ak euh, groupe opposition bi ba mën a ba mën a ba mën a ñu waxtaan ak groupe opposition bi ba mën a dem ci élection yi ñoom maanaam élection président du conseil rural ba mën ko gagné mais li amoon mooy ñun ñoo gagné suñu quoi euh, suñu suñu majorité présidentielle ñun ñi nekk PDS mais am ñu génn ci ñun dem waxtaan ak opposition bi ànd ak ñoom Euh, boobu jamono Thierno Lo moo leen jiite woon ñu def Thierno Lo président du conseil conseil rural loolu nag ñun tax ñu ci woon euh, moo tax suñu conseiller fa nekkoon doon nañ opposé wu doon nañ wane ne doxalin bi du noonu parce que seetlu woon nañ aussi président bi daanaka tur la woon rek mais bureau président du conseil rural sax mosu fa dugg soit dañ naan vice président ou bien ñu ne un conseiller sax lañ dénk signature ak yu mel noonu donc gisoon nañ ne. am na lu xewoon ci dëkk bi loo xam dëkk bi waroon na weesu weesu loolu euh, mosuñu woon xalaat nag ñun dañuy nekk maire ñu nekk suñu parti yàlla dogal ñu dem élection aussi gagné élection yi en 2014 bi ñu ko gañee yàlla dogal en même temps ñu gañee le conseil départemental Fada moo jiite woon liste Darou Moussi jiite woon liste département de Kébémer donc il fallait mu choisir entre le département ak la la la commune finalement bi mu ci waxtaanee kilifa diine yeeg. ñi mbokk yeeg xarit yi ci la décidé dem conseil départemental bu Kébémer maintenant mu desoon nag kan la ñuy jël ci ñun pour le conseil municipal Darou Mousty loolu aussi waxtaan la waroon nekk parce que kilifa yi aussi am nañ ci baat il fallait nga waxtaan ak kilifa yi il fallait aussi nga waxtaan ak conseil yi nga xam ne. ñoom lañ fal parce que ñoom ñooy voté parce que kuñ mën a tànn itam te conseil yi voté luñ ko bu ñu àggee euh, du du du jàll donc bi ñu ci waxtaanee ak euh, kilifa diine yi ba ñu d'accord ci candidature euh, xam nga loolu effectivement xam nga Darou Mousty nag booy xool mooy deuxième agglomération de la région de Louga c'est-à-dire soo xoolee région de Louga yëpp benn dëkk moo fi ëpp Darou Mousty muy Louga su weesoo Louga Darou Mousty moo fi ëpp moo ëpp sax ñaari. capital départemental yi fi nekk maanaam Kébémer ak Linguère Darou Moussi moo ko ëpp daara bi ñuy wax aussi Darou Moussi moo ko moo ko ëpp donc nag dëkk bu mel noonu te habitant population laay wax en terme de population moo ëpp dëpp yooyu yëpp yàq Louga moo fi gën a rëy commune de Darou Moussi bu weesoo Louga Darou Moussi moo fi gën a rëy ci juróom fukki euh, commune ak juróom-benn suma juumut yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci région bi Louga rek moo ci ëpp Darou Moussi donc dëkk bu mel noonu nag di màgg di am ay nit di am ay euh, soxla mun te ak dëkk bu ndaw munte ensuite dëkk bi ni mu bindoo aussi parce que dëkku sëriñ bi la donc aussi euh, munte mel ne commune bu mel ne Ndakaaru wala commune bu mel ne Louga wala commune bu mel ne Kébémer donc yëf yi aussi du yombe du yombe noonu dëkk bi ni muy màggee gaaw na infrastructure yi munu ko toppe noonu su ñu la waxee rek depuis 2014 ñun bi ñu fi nekkee léegi li nga xam ne ñoo ko defal suñu bopp ci mbirum courant ak li nga xam ne Senelec moo ñu ko jàppale ci ñaanuk sëriñ bi ak baaxuk sëriñ bi boo ko xoolee rek li mu toll ci ay kilomètres war naa mat ñeent fukki kilomètres yoo xam dugal nañ ko ci biir réseau bi mais malgré loolu da ngay dem ci ay koñ yoo xam ne ni amaguñ courant ba léegi donc kon dëkk bi ni mu màggee la yow boo doon dox nii sax da ngay dem ba foo xam da nga naan mais c'est pas possible ndax rëyaayu dëkk bi parce que tey jii nii boo jógee Touba rek euh, yaakaar naa ay deux kilomètres ngay commencé dëkk bi commencé Daaru Xoddos ay deux kilomètres wala deux lay nekk ba booy génnaat dëkk bi aussi ci yoonu Louga bi ay deux kilomètres nangam da ko defaat muy ci foofu la caserne sapeur pompier yi nekk boo ko jëlee ci yoon Daaru Manaan la même chose soo jëlee ci yoonu suuf yi aussi la même chose donc dëkk bi dafa màgg dafa rëy soxla nag ay infrastructure euh, soxla accompagnement malheureusement aussi les moyens sont limités par exemple au niveau de la commune am na yoo xam ne ni bëgg nañ ko mais mairi bi amul doole jooju parce que boo ñëwee ñu ne bëgg nañ ay tali parce que dëkk bi boo xoolee amul ay tali ñu bëgg ay tali mais mairie mënut a defar ay tali soo xoolee également ñu ne bëgg nañ yenn infrastructure yu am solo parce que boo xoolee dëkk bi amul benn société industrielle bu ci bu fi nekk mairie bi amul moyen pour taxawal une société industrielle li ñu man rek mooy jéem a euh, susciter un intérêt boo xam dana tax nit ñi daw ñëw ci dëkk bi pour def des investissements loolu nag ba ñëwee ba léegi aussi ñoo ngi ciy waxtaan ak ay tubaab ak ay partenaires yu dëkk ci dëkk bi pour ci réew mi pour que ñoom ñu xam ne daaru musi mooy ginnaaw Touba. te tey ji lu xajul Touba rek man ngi ñëw def si ko Darou Moussi pour mën a dem pour mën a dem Touba. xam naa ci ci ci at yi ci kanam nit ñi dañ gën comprendre que ne. il faut ñu ñëw investir au niveau de Darou pour mën a gérer bu baax a baax euh, le commerce ak l'industrie au niveau de au niveau de de de de Touba loolu moom man euh, wóor na ma ne. waa dëkk commerce la mais bon Touba aussi moo nekk suñu ginnaaw moo tax xam nga ñun ñi nekk fii yëpp muy Diourbel ba Darou Mousty Touba moo moo jël activité commerciale bi commerciale bi mais ak Touba ni muy doxee aussi dana dem ba ñun ñëpp. xaj nañ xaj nañ ci ci ci biir donc li ma doon wax rek mooy dëkk bi li muy yokkee moo tax loolu di am damay Serigne Bassirou Abdou Khoudous daf ma daf am jamono mu ñuy expliquer ne bi ñuy wax mbirum euh, téléphone mobile ci dëkk bi ay 98 nee na bi mu ci wax ak directeur u Sénélec ne ah dëkk bi de waroon nañ fexe ba mobile bi mën fi ñëw mu ne ah loolu de sëñ bi nag moom xam nga dëkk bi moom tollul foo xam ne ni war nañ fi indi internet ndax ñu koy euh, téléphone mobile parce que ñu koy utiliser du bari sëriñ bi ne ko dëkk boo xam ne ni mënoo toog weerte te amoo fa événement bu mag mm-hmm. boo fa indiwul lu mel noonu waxuma waa dëkk mais yaa ngay lor ña fay ñëw parce que ñu fa ñëw rek ci bis booba duñ mën a am connexion internet bu dee jamono boobu téléphone rek la woon sax duñ ko mën a am donc loolu bi mu ko waxee itam mu comprendre ne loolu ku sëriñ bi wax lu intelligent la ci lañ jóge ci la Darou mosi bokk ci dëkk yi njëkk am réseau téléphonie téléphonie mobile xëy na boobu boo doon ñëw ay kenn nit ñaar nit ngay gis ñu dëkk ci dëkk bi yor téléphone mais jamono yooyu la téléphonie mobile commencé dugg ci biir euh, dëkk bi internet bi aussi la même chose mais comme ni ma ko waxee nit dëkk bi doxe boo xoolee antenne yi fii euh, opérateur de télécommunication monté ci dëkk bi antenne yu bëree bëri la ëpp na fukk di mais malgré ça yaa ngi dugg ci zone yoo xam ne léeg-léeg duñu am connexion boo demee fële caserne sapeur pompier bi nekk boo fa demee da ngay am problème de connexion léeg-léeg c'est toutes les lignes euh, opérateurs yëpp donc loolu moo wan ne eh, xaj na investir nañ mais mais des na ensuite population bi aussi am na jamono dafay yokk carrément comme événement bi ñu nekk c'est c'est dommage que tey ñoo ngi nekk ci mbirum mbas mi ba nga xam ne yëf yi dañ ko dañ ko yamale rek mais su nam daan mel dana gën a metti ensuite les opérateurs aussi comme màggal gi sëriñ bi waxoon na ne moom dañ koy kii ne dañuy mastaani rek wàccee kaamel ak yu mel noonu ñoom itam investissement yi ñu waroon def wala yi ñu daan def at mu jot ci màggal gu jot yooyu aussi eh, defuñu ko même la Senelec dafa xaw a tardé ci euh, réseau bi densification bi entretien yeeg yu yu yu mel noonu mais ñoo ngi ci ñu ngi ciy góorgóor loolu yëpp. voilà ñun xam nga bi mbas mi ñëwee eh, ñu ñaanaat yàlla aussi yàlla ñu fi gaaw jëleel ba nit ñi delluwaat ci seen sago parce que yëf yi metti na malgré que ah. oui oui oui malgré que xaw nañ woyofal tuuti mais metti na metti na lool donc ñun bi mu amee entre objectivité li ñu njëkk xalaat mooy ne. su fekkee ne ci alalu mairie bi rek lañ xalaat du ñu mën a jàppale askan wi ni ñu leen bëgg a jàppale donc bay boo ñuy réfléchir sur des stratégies yoo xam dañu permettre ñu identifier ay niche de financement ou bien des sources de financement yoo xam ne dana mën a accompagner not dynamique parce que au départ aussi on n'était pas pour euh, jënd ay ceeb seddaleeg yu mel noonu mais après dafa am dynamique bu mu créé partout foo jóg commune boo dem rek ña ngi jënd nañ ceeb ña ngay séddalee nangam nangam donc say population aussi dañ naan mais yéen itam du ngeen wut mm. finalement on a été obligé ñu dugg ci ci dynamique boobu noonu biñ ci duggee aussi li ñu li ñu njëkk a def mooy woo doomu Darou Mousty yi nga xam xam nañ leen ñu nekkoon ay élèves fii dem bitim réew di jàng ba di fa liggéey ñu woo leen pour wax leen leen ñun de dañu bëggoon a jàppale askan wi bëggoon nañ ku ci nekk contribution bu mu ci mën a def mu def ko ci biñ defee loolu aussi ñooñu jàppale ñu ci alal ju bare bare ñu jënd ci ay kit alimentaire lañ doon jënd ñooñu ñu ngi woon ci amoon na aussi suñu beneen mbokku euh, rakk muy Moustapha Seck bi nekk euh, itali moom da ay tubaab yu ñu fi mosan booleel tubaab yooyu aussi jàppale woon ñu euh, ci benn projet bu ñu waroon def farine enrichie mais finalement ñu ne ñu xaalis boobu ñu ci defoon comme dépensé gu leen ko jël leen ko ngeen jënde ko ab dund pour jàppale nii ñu jëndoon ay kit alimentaire maanaam dañ doon jënd ceeb jënd diwlin ah non au départ avec ce groupe là euh, mooy euh, italien yi ak suñu mbokk yi nga xam ñi ngi France defoon nañ deux tonnes deux tonnes cinq cent ci ceeb mais euh, parce que boobu jàppale nañ lu mat cent soixante famille mm-hmm. yoo xam kenn ku nekk jox nañ la saako ceeb jox la bidon diwlin cinq litres jox la sunguf meew jox la eau de javel jox la madaar loolu defoon nañ ko dans un premier temps après nag ñu ne nañu xool ci suñu alalu bopp ñaata lañ mën a def également pour jàppale suñu alalu bopp aussi bi ko jëlee jàppale nañ lu mat huit cent familles yoo xam ne ni kenn ku nekk jox nañ la saako ceeb boo xam ne ni yóbbu nga ko sa kër pour ñu pour ñu jàppale la yombutoon parce que population commune bi aussi moo ngi toll ci fi mu ne ñu toll ay quarante huit mille ci la population bi toll mais dañ ne su fekkee ne am nañ huit cent personnes amoon deux cent et quelques fële ça comme niñ koy calculer bu fekkee ne kër gu nekk euh, fukki nit ma nga fa rek déjà touché nga population bu am solo ci ñooñu nga xam ne jàppale nañ donc ñun noonu lañ mais à côté aussi dañ ne woon comme marché yaa ngi dox grand place yi aussi nit ñi mënuñu ko bàyyi euh, gare routière bi avant tëjaguñ ko woon ñu ne kon gare routière bi aussi nañ leen yóbbul ay lave mais ci chauffeur taxi nañ ko def ci marché ba nañ ko def gendarmerie nañ ko def fépp foo xam ne ni gis nañ ne mbooloo ma nga fay daje rek ñu jël matériel boobu noon teg fa pour que askan wi bu ñëwee am foo xam au moins mën nañ fa raxasu mais aussi wut ay masques jox ko nit ñi euh, ci premier partie bi defoon nañ ko mais bi màggal Touba aussi ñëwee amoon nañ lu ma mille masques yoo xam ne ni dañ ko séddale nit ñi. pour que ñi nga xam ne bëggoon nañ dem Touba comme ni ko sëriñ bi waxe woon bu ñu dem aussi mën a amaale seen masque boo xam ne nii doon nañ ko doon nañ ko yóbbaale mais aussi accompagner eh, les structures sanitaires maanaam centre de santé bi poste de santé bi ñooñu aussi bi ñu defee réunion euh, médecin bi dafa ñëw mu ne ñoom soxla nañ fukki million ci alal pour mën a xeex première phase bi ñu nekk. waa après lafi ñëw nag mais première phase bi amuñu ko woon waaw deuxième bi moom ñëw na bu baax bi ñu waxee loolu ñun ñu daan ne danañ jël million jàppalee ko euh, commission bi nga xam ne moo moom le médecin bi di bon sous-préfet moo ko jiite mais sur le plan technique euh, parce que comité d'arrondissement la woon. sur le plan technique médecin bi moo fa moo fa moo fa nekkoon ñu jël comme 10 millions lañ bëggoon ñoom ñun ñu jël un million jàppale leen ko. population bi aussi am na ay bonne volonté yoo xam ne génne nañ seen deux millions ñi seen trois millions ñi seen cent mille ñi pour accompagner dynamique gu xeex boobu nga xam ne moo moo moo amoon service di d'hygiène aussi ñu jàppale ko en carburant jàppale ko en produit aussi pour mën a désinfecter les écoles école bu nekk aussi yóbbu nañ fa ay lave-mains bu ñu nee dañuy tàmbaliwaat pour pour pour jàng ba yàlla suturaal ñu première phase bi gisuñu kenn ci dëkk bi koo xam am na ko bon c' est vrai que amoon na ñu ko am mais euh, dañ leen détecté woon Touba lañ leen gise woon par exemple hôpital Touba lañ dem ñu doog di xam ne ñoom daal mais fii ci biir dëkk bi amul kenn koo xam masa dem ci centre de santé bi bañ gis ne loolu loolu dal na ko maintenant bi deuxième phase bi ñëwee nag malheureusement ci la mbas mi nag daal di parce que deuxième phase bi aussi bi ñëwee dafa dajeeg ñu ubbi yoon yi nit ñi di dem ak ñëw marché yi ubbi nit ñi di dem marché ak ñëw te eh, nit ñi aussi li ci jafe mooy yombul ñu nangoo respecte mesure barrière yi maanaam ñi nangoo sol masque toujours ñi nangoo def di distance wala ñi nangoo téye seen loxo parce que itam dañu nekk dëkku taalibe rit li ñu tàmm mooy ñëw jox la loxo bi sujjóot na mais dañuy wax ñun toujours nañu dimbale aussi suñu sëriñ si parce que mënuñoo yaakaar sëriñ bi ñëw di ko jox loxo mu banque loxoom mais ñoo war a dimbale sëriñ bi te suñu loxo parce que mënuñoo nekk ci mbedd mi wëreelu ba doyal ñëw jàkkaarloog sëñ bi daal koy jox loxo te sëñ bi moom ma nga toog fa toog demul fenn te du mën a raxasuwaar ci sa kanam du mën a jël alcool aussi ba mu la nuyoo ba pare di ko def moo tax faawu ñun tam ñu jàppale sëriñ si di leen bañ jox suñu loxo yi di di nañu meloon ak ñoom itam loolu moom du wàññi d'accord mbas mi comme ni nga ko waxee dañuy ñaan yàlla rek yàlla gaaw ko fi jëlale ba ñu ku nekk delluwaat ci sagoom ni mu ko bëggee ak ni mu ko daan ni mu ko daan defee maintenant par rapport ak li nga xam ne moo nekk suñu perspective d'activité ou bien de programme loolu aussi bu ñu koy wax dañuy tàmbali ci secteur yu bari li nga xam ne def nañ ko fa par exemple soo ñëwee ci ndaw étudiants yi tey jii nii ñun bi ñu ñëw ci mairie bi dañu fekk ne euh, at bu jot étudiants yi xam ña nga nekk Ndakaaru ñoo ngi leen doon jàppale ñeent fukki junni étudiants yi nekk Ndar ñu leen doon jàppale ñaar fukki junni ñun bi ñu ñëwee ñu dajeeg étudiants yi nekk Dakar waxtaan ak ñoom ñu wax ñu seen i jafe-jafe mm-hmm. parce que aussi yàlla dafa dogal aussi ñun tam ñu nekkoon étudiant xam jafe yi nga xam ne moom la étudiant dakaar yi di dundee rawatina étudiant Dakar yi xam naa ne étudiant yëpp koy dund mais comme Dakar lañ nekkoon xam nañ jafe-jafe ba donc bi ñu dajeeg ñoom ñu ne leen ñun daal xamuñu lan la ñuy am déwén mais danañ jël engagement ne à partir du 1er janvier 2015 chaque bu ngeen jëlee appartement danañ ko fay ci ci xaalisu mairie xamuñu nag lan la ñu am mais jëloon nañ risque boobu yàlla mi ngi ci suturaal depuis le 1er janvier 2015 ba léegi weer wu dee ñoo ngi leen di fayal appartement boobu loolu mi ngi ñuy dikk at mu jot 1 million 680 mille boo xam ne ñu ngi koy def ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru mais étudiants yi nekk Saint-Louis aussi bi ñu laajtee dañ ñu waxoon ne at mu jot. doon nañ leen jox cent mille francs ñun ñu daal di wax étudiants yooyu ne ñun at mu jot à partir de janvier 2015 daañu leen jox 300000 loolu aussi ba ñu ko tàmbalee ba léegi yàlla mi ngi ñu si suturaal ñu ngi koy def du suñu wareef nag. parce que enseignement supérieur comme enseignement moyen secondaire du compétence collectivité territoriale. voilà supérieur état moo ko teel boobu euh, moyen secondaire euh, conseil départemental lañ ko jox maintenant école primaire yi nag ak case des tout petits yi ak daara yi. loolu mooy suñu suñu cër mais dañu jàpp ne ay ndaw lañ yoo xam ne ni ay doomu dëkk bi lañ euh, lu ñu leen mën a jàppale mën nañ leen ko jàppale surtout que dëkk bi dafa nekk dëkk bu particulier boo xam ne ni am na loo xam ndaw ñi mënuñu ko def ñu organiser ay football mënuñu organiser ay soirée dansante donc loolu nga préparoon bëggoon ko def foofu mën nga ko orienter vers les élèves vers les étudiants d'ailleurs loolu moo taxoon ñu amoon sax benn bis boo xam ne ni jëndoon nañ ko pour transport élèves yi nga xam ne ñoo ngi dem dem lycée donc par rapport à euh, aux perspectives par exemple si secteur yooyu noonu balay bala may àggale foofu sax damay wax éducation enseignement primaire parce que nee naa loolu mooy suñu compétence tey bi ñu ñëwee ci biir dëkk bi naam si biir commune bi 14 euh, ba 15 écoles lañ fi am mais ci biir commune bi 7 lañ ci biir euh, Darou Mousty 7 lañ fi amoon mais tey jii tabaxaat nañ ñun beneen école bu bees tudd mu nekk école Ngomeen Colli Ngomen lañ ko doon wooyee sax euh, tabax nañ fa ñeenti classe yoo xam ne ni ñoo ngi fa mais école yi nekk ci biir dëkk bi aussi am ay jafe-jafe salle de classe muy école 1 di école Sëñ Modou boobu aussi tabax nañ fa salle de école 2 tabax fa salle de école Ngomen euh, nu ñu ko wax sax Mbegere tabax nañ fa salle de classe euh, Bouchra muy franco arabe tabax nañ fa deux deux salles de classe et ren en perspective li ñu bëgg mooy école Ngomen bi ñu tabax une cinquième salle de classe mais également clôturer ko entre Daaru Diop Sarsara ak Daaru Rahman aussi seen école kenn clôturer wu ko bëgg nañu ren aussi clôturer ko bu ñetti yëpp matut itam ñaar ñu bëgg nañ leen clôturer en terme de fourniture scolaire aussi on les accompagne paiement des factures pour les écoles aussi mairie bi moo koy jël en charge ba mu bu dépassé 3000 francs nag ñu bàyyee ko école bi euh, mais su dul loolu mairie bi mooy jël loolu en en en charge ci jigéen ñi aussi la même chose bi ñu ñëwee également euh, jigéen ñi li ñu njëkk a wax mooy il faut ñu identifier leen pour man leen accompagner bu baax ñoo ngi ci processus d'identification bi depuis très longtemps mais aujourd'hui euh, formation aussi ñu ngi koy def ak ñoom accompagner pour des financements aussi ñu ngi koy def ak ñoom bu yàggutoo njaay rek avec le gouvernement fexe nañ ba am financement cinq groupement de femmes yoo xam ne ni tey jii ku ci nekk jot na lu mat sept cent cinquante mille ba un million nekk ci ay activités am suivi boobu aussi yi mi ngi koy def di dem di leen nemmeeku di xool fan lañ toll par rapport ak loolu ñu leboon ak fan lañ toll ci ci payment bi mais à côté aussi dañ ne nañ xool ñun nan lañ mën a accompagner les femmes de la commune euh, pour toucher le maximum de femmes ci loolu lañ waxtaanee woon ak des institutions de microfinance ba trouver un accord boo xam ne ni financé nañ suñu faamu dëkk commune bi cinquante millions yoo xam ne ni signé nañ protocole bi bërki démb keroog samedi ñu bari gis nañ ne signé nañ ko ak benn institution de microfinance boo xam cinquante millions à partir du 19 avril war nañ ko génne séddale ko lu mat juróom ñeent ñaar téeméeri groupement de femmes loolu nag ñaar téeméeri groupement de femmes yi mooy junni. jigéen yoo xam ne ni daañu séddu ca loola pour liggéey mais nag ñun bëgguñu rek def euh, accompagner leen pour ñu am prêt ba pare nag seetaan leen dañu bëgg ku ci nekk la nga waxoon ne moom ngay yëngutu ñu man di ñëw bu doon benn weer bu nekk la wala ñaari weer yu nekk ñëw xool fan nga ci toll yan jafe-jafe nga am yan orientation correction nga bëgg ñu accompagner la ci pour mu mën a pour mën a mën a mën a baax donc loolu aussi accompagner nañ euh, femmes pour ñu def ko ak euh, euh, nu koy waxee sax euh, le corps de la paix américain ñoom aussi indiloon nañ ñu fi benn volontaire bu fi nekkoon mbas moo tax mu mujj dellu États-Unis mais bi mu fi nekk aussi accompagné na ay groupement de femmes ñu am ay formation complémentaire par rapport ak euh, wala supplémentaire par rapport ak euh, ay fabrication de jus fabrication de sabon de chose comme ça yoo xam intéressé na bu baax a baax euh, jigéen mais waxtuwaa ngi doxantu te waxaguma dara ci bilan bi parce que bilan bi il faut mu wax ci tuuti ndax tey jii nii daa Musi waaw Daaru Musi 1953 55 la amoon abattoir mais tey jii nii demoon nañ ba abattoir boobu dafa amoon ay xeet ñu fa dëkkoon parce que bu njëkk fa mu nekkoon kenn dëkk fa mais dëkk bi ni muy doxee dem na ba kër yi wër ko ña fa dëkk xet gi di leen sonal tan yeeg yu mel noonu ñu koy coow di wax lu ne yàlla dimbalal dimbale ñu ba ñun ñu tabax abattoir bu moderne boo xam ne ni amul xet te dafa am ay biodigesteur maanaam neefere nag yi ak li nga xam ne moo nekkoon ci mbàq bi moom la ñuy utiliser pour produire engrais ak defar gaz tey ji boo demee da nga gis ne mi ngi produire gaz mi ngi commencé produire euh, engrais te amul benn xet boo ñëwee mën ngaa laal sa basang tëdd nelaw wala nga julli loo bëgg def mën koo def loolu maa ngi fa mais itam état civil état civil bu Darou Mouhty aussi bi ñëwee ñun dañ ñëwoon il faut ñu xool état civil lan mooy solution bi pour ñu am un état civil fiable ci lañ waxtaanee ba am trouver ina euh, ñu informatiser suñu état civil depuis janvier 2019 dañu état informatiser suñu état civil et aujourd'hui on a plus de cinquante mille actes yoo xam ne ni numériser nañ leen tey am na mag ñu bari dañ doon ñëw soxla kayit ñu ne la numéro extrait nga ne xaw ma ko ñu ne ah kon nag góor gi wala soxna si kenn mënut te gis sew kayit léeg-léeg xale day ñëw mu ne xamu ko ñu ne na judduwaat mais loolu c'est fini maintenant à Darou Mousty parce que dangay ñëw boo joxee sa tur rek noo tudd Sonia bu Diop ñu ne ah gis nañ fi Sonia bu Diop bu juddu telle année doomu diw ak diw nga ne man la ñu ne kon boog parce que dañ lay laaj yow yaay wax sa turu yaay ak sa turu baay boo nee diw ak diw ñu xool bu ko correspondre loolu ñu ne la kon moom la donc loolu aussi réglé nañ problème bu mag pour jigéen ñi pour élèves yi pour mag ñi ñoo xam dootuñu soxlaati ñëw di def ay jugement à n'en plus finir et loolu lu lu lu lu am solo sapeur pompier adaar Adar si nekkoon na loo xam aussi lu ñu yàgg bëgg la keroog Serigne Bassirou Abdou Khodos porte parole ñëw na visité ko wax fa wax ju rafet kontaan ci lool ci turu Serigne bi dalal leen bu baax a baax Serigne Chaas Faye chef de village ñëw na fa visité ko moom te wax ne yàgg na ñu bëggoon camp de sapeur pompier mais yàlla mi ngi ko dogalee ci ñun bi ñu nekkee maire ak jàppaleeg le général Seck. ak le ministre de l'intérieur ba ñu mën a am caserne bu moderne tey jii nii euh, sapeur ya fa nekk yëpp dañuy wax seen morom yi bu ñu gisee photo yi dañ leen di ñee parce que caserne bi ñu am gisuñu fenn foo xam ne nii am na fa mais comme ni nga wax ci perspective aussi y a la police le commissariat de police y a la gendarmerie également ñi ngi waxtaan ak le ministère de l'intérieur jamono yee ku ñuy wax commissaire ba sax woo nañu pour ñu waxtaan parce que dañ ko proposé woon ministre bi dañ nekk woon biñ ko bindee ñun de am nañ foo xam ne ne mën nañ faa dugal police en attendant ngeen di tabax que bu ñu bëggee xaar na mën na yàgg ñu def comme ni ñu def ci ci ci caserne sapeur pompier bi lettre bi demee lañ ñu woo ne ñu loolu ñu leen wax doy na leen te ñoo ngi xool nan la ñuy fexe bañ mën a am loolu donc am nañ ci yaakaar lool keneen ne dinañ am caserne bi euh, de la même manière aussi pour la brigade de gendarmerie boo xoolee gis nga dëkk yu bari brigade yu bari dañ ko defaraat mu rafet boo xoolee ay booru Bambey wala nga xool ay booru podoor Dagana da gis ay brigade de gendarmerie yu rafet ñun tam loolu ñu ne bëgg nañ lu mel noonu ci lañ waxtaan ak général bi Moussa Seck Moussa Fall pour ne ko il faut mu jàppale ñu ñu am une caserne à la hauteur de Darou Mousty parce que caserne bi ndaw ne ci Darou Mousty moom itam boole nañoo ak le colonel bi nga xam ne mooy gérer Louga Matam Saint-Louis euh, yónnee nañ ko lettre ñoo ngi ci ay pourparlers pour xool nan lañ mën a fexe yàlla dogaloon na aussi ñu defoon délibération pour fi nga xam ne moo war a nekk commissariat ak fi nga xam ne moo war nekk gendarmerie ak fi nga xam ne moo war a nekk caserne euh, sapeur pompier loolu ñu yónnee leen euh, délibération bi di leen xaar ci fan yu néew xaj na danañ am ay ay ay réponse wàllu hôpital aussi loolu aussi dañ ci am mbégte bu baax a baax pour wax ci parce que euh, bi ñu ñëwee également état c'est vrai que renforcé na les compétences des collectivités territoriale surtout le maire mais des na ba léegi parce que pouvoir bi nga mën a am doo ko mën a am ndax am na organe bu fa nekk boo xam ne nii maire bi moo ko jiite mais tey ji maire bi amul benn pouvoir boo xam ne nii bu wootee organe ba bu nit ñi ñëwut dina am un pouvoir de sanction amu ci d'ailleurs lu mat juróom-ñetti weer ngi nii ñu ngi ko bëgg a taxawal mais mënuñu fexe ba woote mënuñu fexe ba nit ñi daje parce que juróomi rek lañ mais am na ci ñoo xam ne ni boo leen wooyee duñ ñëw te am na ci ko xam bu ñëwul yoon bi daf lay wax mënoo def réunion mais amuñu beneen recours bu ñu mën a defaat pour man def obligatoirement loolu maintenant on s'est dit ñun nan la ñuy def ba accompagner le centre de santé mu dox bu baax ba au-delà des médicaments yi ñu jënd at mu jot ñu solliciter aussi des amis de Darou Moussi yu nekk en France ñoom Mbaye Fall Diallo des jeunes yoo xam c'est des jeunes cadres aujourd'hui en France ñu wax leen nan ngeen mën a jàppalee mairie pour ñu améliorer le plateau technique améliorer également l'offre de soins au niveau au niveau du centre de et des postes de moo tax ñu ubbi deux centres de santé wala trois centres de santé dans un premier temps Yaare Dakar bi Serigne Cheikh Khadi nekkoon euh, ancien xalif euh, ak ki nga xam ne fi nga xam ne mooy kër Aliou ñu ubbi leen ñaar yooyu yëpp ñoo leen ubbi mais ñu tabax Sarsara ubbi Sarsara tabax nañ ko ubbi ko muy trois postes de santé yoo xam ne ni benn bi ñoo ko tabax ñaar yi dañ ko tabaxoon ñun ñu ubbi ko mais après état aussi jàppale nañ ñu ñu tabax benn poste bu ndaw à Dibiyad temps yee bindoon nañ lettre état pour mu jàppale ñu ñu mën ko fexe ba ubbi ko bala muy yàgg parce que sinon pertement la nga def ci ay millions ba pare te doxul euh, Arafa également la même chose. Euh, foofu aussi case de santé bu érigé en post la dem nañ fa waxtaan ak sëriñ bi fekk njaboot ga ñoom taalibe yeeg sëriñ bi fexe nañ ba ñoom commencé woon tabax dara ñun bañ ñëwee ñu ne la aussi danañ tabax maternité bi xool ba xam euh, logement bi ndax dañ ko mën a dem mais maternité bi moom jël nañ engagement pour def ko ren bind nañ lettre aussi ministère pour nax ko nañu ci jàppale bu ñu jàppale dañ dem bu ñu jàppale aussi lañ ama ko si néew danañ ko dañ ko danañ ko def donc loolu ci mbirum poste de santé mais indi nañ fi ay lal yoo xam c'est ay lit électrique la yoo xam da ngay branché ci courant bi euh, léeg-léeg nga am boo xam du man dara mais lal bi mën na ko yëkkati parce que boo branché ci courant bi bés am nga ay bouton yoo xam ne nii comme télécommande la mën na ko yëkkati ba mu toog sax te loolu am na malade yoo xam duñ ko man mën na ko yëkkati ba mu mel ne nga gënaayam la am loolu am nañ ci lu ma 30 lits yoo xam ne ni entre centre de santé bi lañ ko yóbbu ak euh, poste de santé euh, bu Sarsara mais suñu partenaire français yi aussi jàppale woon nañu parce que équipement bi nekk Sarsara yëpp ñoom ñoo ñoo ñu jàppale bañ man ko bañ mën ko équiper te promettre nañ ambulance boo xam ne nii jàpp nañ ne du yàgg dara mu ñëw amaan na beneen groupe de partenaires aussi boo xam aussi ñu rek ñoo ci des pour que ambulance boobu ñu mën ko embarquer xam naa fan yi ñu jëm daañu régler définitivement ce problème la pour ñu mën ñu ambarkee ambulance bi mu mu mu ñëw donc ci mbirum santé ñoo ngi ci di accompagner en même temps ñoo ngi enrôler ay nit ci mutuelle de santé bi parce que da ngay toog Euh, population yi parfois duñ comprendre parce que da ngay gis ni dañu ñëw poser le problème parce que jàpp nañ ne mairie dafa yor tiroir boo xam boo ñëwee wax rek mu ubbi génn jox la alors que warut demee noonu donc il faut comme nit ñi dañuy ñëw di la solliciter tout le temps ci liñ lay solliciter nga xool noonu lañ ci taxaw la loolu moo tax ñun ñu ne nañuy fex at mu jot ñu dugal ay nit ci mutuelle de santé bi koo ci dugal bu gisee njariñ bi ren bu déwee ne dana fayal boppam donc ça fait deux ans wala ans ñoo ngi koy def ren ji également prévoir nañ prévoir nañ enrôler waat d'autres gens ci biir mutuelle de de santé pour rendre leen autonome à côté aussi am na ñoo xam ne ay dialysés lañ ñoo leen jël en charge am na ñoo xam ay maladies de cœur lañ am ñoo ngi leen jël en charge à la limite de nos moyens et de nos et pour l'emploi des jeunes également am nañ fi un projet boo xam avec le FERA ñoo ngi ciy liggéey mooy désensablement tali bi dindi suuf si ci nekk ren ji am nañ lu mat juróom-ñaar fukki ndaw yoo xam ne ni ñoo ngi ci ñoo ngi ciy liggéey am nañ ci sax ñoo xam ne tante woon nañ doon dem euh, ci ci mbëkk meeg yu mel noonu mais yàlla dogal na ñu ngi toog di jàppande koogun ci li nga xam ne amakus nañ ko kus néew. et à côté aussi pour accompagner toujours les jeunes am nañ fi lu ñu doon wax foye des jeunes aujourd'hui ñoo ngi travailler pour que foyer boobu ñu transformer ko en bibliothèque culturelle boo xam ne ni boo fa ñëwee yow jànkat alxuraan bi da fa gis la soxla ci ay xasida da nga fa gis lépp loo xam ne ni information boo war a am la ci mbirum diine mais à côté également ki nga xam ne euh, ay roman français bee ko intéressé dana gis lu mel noonu dañ fa am aussi une grande salle polyvalente boo xam ne ku bëgg a def réunion di nga ko fa mën def mais un cafétéria boo xam aussi ku ñëw di liir ci bibliothèque bi wala nga ñëw di réunion soo bëggee mën ngaa dem foofu jënd sa café naan ak yu mel noonu euh, ñoo ngi defar aussi parcours sportif pour que jeunes yi aussi ñi bëgg a def sport am foo xam ne dañ fa mën a def seen entraînement mais également a côté un terrain de pétanque ñu ngi koy aménager et le terrain de basket bi fi amoon aussi ñoo ngi nekk di ko di ko réhabiliter loolu ñoo ngi nekk di ko liggéeyandoo ak euh, jeunes yi pour euh, mieux les accompagner. non bàyyi sama parce que conseiller la moom comme conseiller la donc loolu yëpp da koy dégg donc su su bi dee wax am na. possibilité man ko wax ne ko fàtte nga nangam parce que fekke na bañ koy nas muy làmp yi nga xam ne mi ngi ci dëkk bi tey ji peut-être waa moom am nañ ko mais ñun biñ koy am itam yaakaar naa ñi ko am ci ci région bi bariwul mais ñi ko am ci suñ tund bi itam bariwul yàlla dogal na ñu amoon ci lu mat 6 kilomètres yoo xam ne booy duggee Daaru Musi booy duggee Touba di dugg Daaru ba génn ko ci yoon Daaru Manaan wala nga génn ko ci yoonu Louga bi yooyu yëpp yàlla dogal na ñu am fa éclairage solaire mais ci biir dëkk bi aussi am na éclairage bu njëkk bi moo ngi fi moo ngi fi nekk ba léegi te loolu aussi bi ñu koy am nekkutoon lu yomb waa ANER ñoo ñu ci jàppale agence nationale d' électrification rurale ñoo ngi ne aussi di travail ak ñoom pour renforcer li nga xam ne jot nañ ko am parce que yëf yi bi mu ñëwee nit ñi gis nañ njariñ bi parce que tey ji bu courant coupé guddi da gis ne kaw télé bi day leer nañ donc suñu yàlla do dimbalee nag bañ mën a am. lu gën a yokkaat ci kaw tali bi mais dugg ci yenn ko ñi nga xam ne réseau courant bi àggu fa dina baax et en même temps aussi dañuy remercier Senelec parce que réseau bi aussi densifier nañ ko bu baax a baax parce que boo doon dem fu mel ni fii kër Aliou Ndiaye village la woon mais lay quartier la ci biir dëkk bi foofu noonu réseau bi dafa faible woon loolu tey jii Senelec changé na ko carrément defar fa ay poteaux yu bees yokkaat courant bi soo demee fu mel ne Bouchra également courant bi aussi doom bu góor la fa woon mais tey jii boo duggee da nga gis ne courant bi yaatu na fa lool si si suba rek maa ngi jaar ci ñoom fekk leen ñuy réglé waat horloge bi nga xam ne moo yor lamp mbedd yi ci biir dëkk boo demee fële aussi euh, sanc ba daaru nayim da nga gis ne foofu aussi courant ba defaraat nañ ko yokkaat ko ba jàll nañ ci sanc sëñ Abdourahmane bu bu bees bi loolu aussi dañ ciy sant bu baax a baax la la Senelec yeneen dëkk yi nga xam ñoo bokk ci commune bi aussi kenn du leen bàyyi parce que boo demee Daaru Diop def nañ fa extension Senelec ñu aussi ñëw na jàppalaat ñu extension soo demee Daaru Rahman aussi ñoo ngi préparé un projet de d' extension de même que yeneen dëkk yi nga xam am nañ courant absolument jërëjëf ñoo ngi leen di sant di leen encouragé yéen itam di leen félicité bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey incha allah lépp lu ñu xawleeti rek dañ ko jaar ci alaaj soin bu su ko defee ngeen mën a ñëw participer gisal seen bopp parce que li ñuy wax weddi gis bokku ci parce que bu gars yi ne lu ñu def nga ne ah mi ngi nii télé bi génne ko wane ko ko weddi woon da nga xam ne loolu am na moo tax dañ leen di encouragé waat parce que lii ngeen di def aussi fexe ba télévision bi di jàllale ci internet bi su ngeen toogoon rek ne bu ñu amul télé buy génn comme télé yëpp rek duñ ko def su boobaa mën naa indi jafe-jafe mais lii da ngeen permettre keneen aussi moo am non seulement un moyen pour ñu gis la muy def mais également am un moyen pour seetaan aussi euh, une télévision parce que euh, lu am lu solo en tout cas ñoo ngi leen di sant bett ngeen ñu nag moo tax xaj na am na yuñ bëggoon wax xaw ko xaw ko fàtte mais yoon yemut ci benn ñoo ngi la sant di gërëm. mbokk yi ñuy topp ci internet bi ci Waarwi TV ñu ngi leen di santaat di leen gërëm dégg ngeen li monsieur le maire ba bu daar Mousty vraiment macha allah mu ñu cee teg baat di ko jaajëfal ndax dana nit bala nga kaa xam. da nga koy mu wax mu dégg ah, di ko jaajëf lu baax li mu mébét ci dëkk bi dégg ngeen ko li mu defit dégg ngeen kon nag ñu koy ñaan suñu borom yéen booyeef tooy ci kaw ba mu mën a eggale ay projet am ci kattanam ak man-manam ndax nii rek mooy àdduna boo jaaree cib jaar-jaar da ngay fexe ba def fa loo xam ne keneen ku fa jaar sa loxo dafay tege kon ndax ndaw bu nekkee cib dëkk di liggéey ci dëkk dañ koy jaajëfal tey nag jotaayu Darou Mousty ni leen doon seq ak monsieur le maire Darou Mousty ma Diop bi tey moom lañ ko doon si ànd ceeg bàyyi sooy bu Diop suñu baay bi nga xam ne macha Euh, moo ñu ubbil yoon wi xàllal ñu di sant sëñ Basiru la ma nga xam ne moo na ca régie ba ak Saane mi nga xam ne mooy filmé ak Sira ak képp koo xam ne équipe nga boo xam ne yaa bokk ci Waarwi TV man ngeen di gis mais dama am équipe bu sama ginnaaw di ma jàppale ma leen di jaay jaajëfal beneen rendez-vous incha allah ci barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf